mbokk mi déglu ma may indil la pexem jigéen bu réussir ak bu échec pexem jigéen nag laa la wax kon déglu ma may indil la pexem jigéen pexem jigéen ban moo réussir moom laa lay indil waa ji daañu ne am soxnaam soxna si nekk ak moom ci kër gi ci lépp nag ca sabar ya lay xewe sabar ya sabar ya rek lay xewe ndeysaan yàlla dogal ah waa koñ ba tëggoon nañu seeni sabar ba dem ñibbi ngóor si wol réew mu ñibbi mu jàdd ci kër soxna si ba mu jàddee ci kër soxna si waaye ji entré ko mu daal di dugg toog ba mu duggee toog commencé ñuy waxtaan seen i waxtaan ba ñuy waxtaan seen i waxtaan ba mu yàgg rek jëkkër ja fëkk kër këng këng këng këng ndaw sunu ko ah mun na ko lu xew mun na ko sama jëkkër sa jëkkër yi lan mun na ko sama jëkkër yi ñëw tey laay dee mun na ko ah léegi nag ba ci lan mun na ko ah tànk de sabar amoon na fi te yàlla dogal na ah eh, fëgg nañu bunt bi yow kay kaay ma muur la nii rek waa jaa ngi wattu nel bu set boo xam nii mooy bi bi bi bi effet laa lay wax de waa jaa ngi wattu nel bu set boo xam nii daal di toog ndaw daal di naka la sukk nii copp rek ndaw si jël eh, darat bi rek daal ko koy muur daal di toog jëkkër ji ñëw toog ci lal bi di xool muuraay bi di xool muuraay ba ci yàgg mu ne soxna si waa lii muuru fii lu mu doon ndaw si ne ko ah lii ah, <laughs> lii la du dara sabar gi fi dal ñoo tëgg sabar gi ba pare rek daal di may dénk seen sabar gi ndeysaan te sabar xam nga ni bi ko bàyyi ko noonu rek da ngay waaw moo tax mu dénk ma ko rek ma bàyyi ko nii waa ji ne ko ah dañ laa dénk sabar mu ne ko dañ ma koo dénk mu ne ah amal ma benn galañ waay ma essayé ba xam sabar gi neex naa am déet hii ndaw si naan ndaw si dem wut benn bant bale mu ne ko non non bant bale bi tëgg yow tamit ndaw si dem wuti wut galañ bu baax jox waaj waa ji ñëw ba tiim nelaw ngóor si waa jaa ngi sàngu mu jékki-jékki rek xàcc galañ ne ko ci bopp bi faaj rek waa ji ci suuf ku ñu muur daal de ca cëb bi jaxin ca cëb bi jaxin parce que dégg nañu wax ko waxi sabar ah mun na wàññi ne ko mais yow sa sabar ki dafa neex ah daal di jékki-jékki xàccuwaat pot pot doole ji jéeg rek tegaat ko ci nder wàññi. ne ko ci faaj waa ji ne rëndëndi bën rëndëndi bën rëndëndi bën mu ne ko ah waaj yow sa sabar ji gën a neex ah naka la. ci waat bu mu xir dóor ko ci waa ji bëgg koo wan ne sabar gi fukk na dëkku ci dóor rek waa ji noonu pok pok pok pok pok pour moom sabar gi fukk na waa ji nag bi léegi lu fokkee nii xaw ma da ngaa ne fukk na de du fokkee nii de ma sol samay daal di génn kooku